di sant ñëpp di gërëm ñëpp di tatagal ñëpp di yaan yàlla yàlla nañu yàlla may jàmm ñëpp xëy di am jàmm ñëpp di am connexion yu ñu jàllale seeni message amaat connexion bu ñu dégloo yàlla defal ñu tawféex ñu dem ba lii nii doon ay télé télé télé yàlla am na ko mën na ko te yàlla na ko def ndax macha allah li fi wàcc lépp waaw xel yu rafet kese la xel yu rafet nag dañuy Wolof Njaay nee bu dajee rek solution am kon yàlla na solution am suñu Sénégal bu loolu passé ma ñëw ci maajoor ak joor tey ci laay ñëwaat maajoor ak joor dama ne joor dama ne naar gëmul yàlla naar gëmul yàlla ndax li tax gëmul yàlla mooy na xam ne moom sëy bu sëriñ takk sëriñ a koy tasaat loolu moom na ko leer donc kaase gu la xaatim may xaatima laan la waat teg ni ci suuf moo lay wàcce waat ba nga ba nga toll bu la yëkkatee ba nga mel ne asamaan moo lay wàcce ba nga ne tuut ci suuf kon na gëm yàlla xam na li yàlla dogal ku ko bañ sa xol du jeex waaye man naar mënuma ko comprendre naar bañ mosumaa gis bii mbañeel mbañeel am na waaye gii ëpp na ëpp na ëpp na ëpp na torop ëpp na torop bu loolu paasee tamit ma ñëwaat ci ñi nga xam ne ñoo teew yaayu maajoor dañ bàyyi yaayu maajoor mu fekkee ji bisu doomam ji dañ ko bàyyi mu fekkee ji yaay amul lu dul loolu yaay loolu rek lay reebe mu ngi dund dund bu metti te kenn tegu ko ko ko dul naar est que naar jullit la est-ce naar mi jullit la naar baaxul de naar baaxul ñu naar ñu mel ne moom ñoom rek ñoo yàqu société bi luñ gën a def ci lu bon defe ne yàlla amul non naar man nu ma ko comprendre te ndeysaan salaamaaleykum Wally Xew TV nuyu naa leen lu ngeen nekk yéen ci jàmm yéen ñëpp ah man moom tey ci Madior ak joor laay ñëw ndaxte dama cee kontaan trop dama cee gis sama bopp bu baax a baax a baax waaw ndaxte mm, yaayi joor ak joor mm, man maanaam noonu sama yaay ak sama maam noonu la demee woon ba tey ji sama yaay tamit fan ko tegoon ba tey jugu fa ba léegi car macha allah wax dëgg yàlla ñoo ngi sant bu baax moo tax daal euh, épisode 30 bi daf ma neex dama cee gis sama bopp bu baax ndax sama maam bi muy dem kër tamit yóbbaale sama yaay. muy nekk doomu jible euh, sama maam bu góor doom taawam bu góor tamit takk ko takk sama yaay tey naa ngi jéggul ci kàddu gi sama yaay tamit sëy boobu wax dëgg yàlla mooy dox ba tey ji macha allah mu am ay goro am ay doom yu sëy yi macha allah ma gis ci sama bopp bu baax ko naan arab naag daganu daal weddi gis bokku ci waaw macha allah dara araamu ci ñoo ngi nii